imaam yi yi ma xam ci euh, li ëpp ci euh, foofu nga xam ne mooy grande mosquée ya fay ne yëpp gouvernement moo leen fay teg te itam la ñuy euh, jëfandikoo yooyu yëpp ñoom ñoo leen koy ameel kon loolu dafay doon loo xam ne ko fa nekk war na am looy seetlu nooy waxee looy bàyyi xel bu baax a baax ndax askan wi yëpp ku ci nekk ñu ngi gëstu di bàyyi xel moo tax toujours imaam buy wax rek dafay war a wax loo xam ne luy jëriñu askan wépp la waaye bu ne nañ ma seet Euh, seetee gooñu euh, day mel ni kon euh, kooku ay intérêt lay lay lay bëgg waaw kon bu fekkoon am nañ programme boo xam ne dañ koy def ñu ñu ko mu ñëw wala ay ñeneen ñëw lu boobaa loolu noonu waaye loolu dafay doon loo xam ne daal imam bu ne war na ciy bàyyi xel ndax comme ni ma koy waxee toujours imam dafa nekk loo xam ne garaatam lu kawe la waaw ndax comme li ma la wax ne bu ñu xasee ba eh, nit ñëpp ne ci ginnaaw mooy ne ci kanam ngir lan ngir xam ak eh, expérience am ak doxalinam ak ak ak ak loolu la ñuy tànn moo tax toujours imaam bi dañ koy tànn kon loolu dafay doon loo xam ne daal wax dëgg yàlla eh, du rafet ci imaam mu koy wax waaw ginnaaw nag yenn imaam yu bari ñu ngi koy dal ci kawam waaye daanaka am na ci ñoo xam ne li ñuy wax loolu la ànd waaw euh, li ñuy wax loolu ànd su imaam euh, tuut koo xam ne euh, lu ko nee wax waaw maanaam bu mu xësee ba nekk fa askan wi la fay nekkal ba ba jóge fa kon mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ku bëgg a dugg mën naa 88 628 19 05 88 10 628 19 05 88 628 81 08 mooy bu mu jokkoo gi incha allah bu ngeen ñëwee ñu waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu doon wax ci xew-xew. li nga xamante ni moo amoon comme ni ñu ko waxee toujours rek euh, Sénégal euh, ñun ñëpp ñoo ko bokk kon lépp loo xamante ne nii euh, lu ñu fi def la rek dafa war a doon loo xam ne lu tegu ci aw yoon la waaye lu rafet lay doon ndax comme ni ma koy waxee toujours nit ñi jumtuwaay yi dafa jàppane maanaam internet baa ngi fi lépp a ngi fi loo wax rek suba. wala euh, une minute rek mën nañ ko génne euh, daal di koy euh, tasaare bu baax a baax a baax te buñ ko tasaaree nit ñi ku ci ne say jàngat nga ciy def te jàngat yooyu nga ciy def ku ci ne jàngat yi nga ciy def ku ci ne sax ñii dinañu am xel mu rafet ñii itam dinañu gisee neneen waaye dëgg-dëgg bu boobaa ki nga xam ne ni moom mooy jëf-jëf jooju war na ci bàyyi xel bu baax a baax taxaw seetluwaat jàngataat ni moom li mu wax fan la ko teg ak lu taxoon mu wax ko kon dafay doon lu am solo lool lool kon ñu ngi leen di eh, ndokkeel bu baax a baax di leen fàttali rek ne eh, yéen a ngi woote ci 88 628 19 05 88 628 19 05 ñuy siyaare bu baax a baax eh, mbokki kër gi yëpp ku mel ni sëñ masque yi démb bu ñëwoon na fi macha allah di waxtaan waxtaan bu am solo ci diine waaw di yeete bu baax a baax ñu ngi koy siyaare niki noonu suñu ndijaay ngom ñu ngi koy siyaare. Eh, di siyaare sëñ eh, eh, Mahmoudan ñu ngi koy siyaare Sakho ñu ngi koy siyaare bu baax a baax oustaz Abdoulaye Guèye al oustaz Mouhamad Diagne Faye oustaz Mbaye Ndiaye ñëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di rafetlu seen teewaay fii di siyaare itam sëñ Maam Góor Mbaye ñu ngi koy siyaare moom itam macha allah ci kër gi la nekk ñuy siyaare mbooleem ku ñuy déglu rek foo ñu mën a déggee rek foo xam foo xam ne nii rajo mu ngi fay àgg rek moo xam diwaanu Diourbel la diwaanu saajo Mbar fu mu mën a doon bii daara jolof fu ñuy fu ñu fi déggee rek ñu ngi siyaare ñëpp bu baax a baax eh, di leen ñaanal tawféex di leen wax ne suñu waxtaan tey ci loolu laaju woon mooy leeral mooy comme ni ñu ko waxee woon eh, bokk na ci li ñu njëkkee woon mooy eh, Sénégal jàmm rek bëgg muy diggante ñaari kër yooyu nga xamante ni ñoo doon am ay xeex ba bakkan ci loolu tam doon nañ ci def ay jàngat ni yelluwut rafetut rawatina ñi nga xam ne ni ñoo bokk. diine ñoo bokk lislaam te itam euh, xibla bi benn xibla la euh, waaye itam euh, borom bi benn la yonente bi salaa salaam benn la kon loolu di fi am seen diggante lu mel noonu dafay ñaaw lool lool ba tey it duggoon nañ ci yéen ci ku mel ni maanaam ministère de ministère El Malick Ndiaye comme li nga xam ne ni moom la yore mooy wàllu dem ak dikk bi jëf ju rafet yooyu mu defoon ci tabaski gi yombalal nit ñi lu leen indi ngir mënoon naa jafe lool ci ñoom ndax am na ñoo xam ne seeni euh, euh, soxna ñu ngi leen doon xaar ci ay yu baree bari tey bu ñu leen calme woon ñu nekk ci àll bi di fa fanaan wala yu mel noonu boobaa seen yenn ci ay yitte yu bari mën naa mën naa tënku waaye bu ñu leen jàppandalee loolu kon loolu liggéey la bu réel boo xam ne ni euh, ministre bi def na ko kon loolu lu rafet la loolu lañuy rafet rafetlu bokk na ci itam comme li nga xamante ni président jug na dem fa France dem gi mu fa dem lu ko war la parce que euh, la fa xewoon bi ñu ko muy wàllum wàllu lu mel ni euh, vaccination yeeg xeet yi ñàkk yeeg lu jëm ci wàllu médecine yu mel noonu loolu ba mu ca demee ba pare faaw itam am réew ku ca dem faaw nga def jataay ak borom réew ma mooy ku ko yàlla dénk muy euh, Macron ba mu fa demee itam def na jataay waxtaan ak moom te waxtaan comme ni ma la koy waxee rek du mën a ñàkk réew yi ñi nga xamante ni euh, président yi ñoom dañuy demlante waaw faaw ñuy demlante njax ñoom la yàlla boole euh, kii boobu garaat boobu muy garaatu njiitam réew kon njiitam réew fu mu ne ci àdduna bi rek euh, suñu prisident war naa nemmeeku ko ndax ñoom nattango lañ amaa nag ci jëflante yi nag dama ne la noo du ko gars yi wax kër yaa géré la maanaam njëriñoo ku ci ne da ciy gis sa bopp bu baax a baax a baax kon loolu mooy mooy njëriñul réew ak réew mooy ñuy jariñante ku ci nekk euh, sa moroom di la jariñ France di jariñ Sénégal Sénégal di jariñ France waaw te itam jariñul France sax moo war a ëpp Sénégal ndax comme doomam la <laughs> di teg doomam moom ah da ko war di ku bu baax a baax parce que comme ñoom ñooñu ñooñu colonisé woon mujj libéré ñu léegi ñu nekk euh, maanaam république euh, kon yaakaar naa ne seen i jëflante ak ñun waruñu noo di gadget waaw waruñu noo li li ëpp doole di dem ci ñoom ñoom toujours Euh, li ëpp doole daa war di naw ci ñun ngi jël li ñuy doole sax ndax comme euh, ñoom ñooy suñu magu réew dafay doon loo xam ne euh, dañu war a am yërmaande bu baax a baax yaakaar naa ne ñooñu nga xam ne ñooy ay ku mel ni gii Marius Sagna lu mel noonu lu doon kaas waaw moom vrai sénégalais la wax dëgg yàlla moom bokk na ci sénégalais yi nga xam ne ñu ma naw la waaw parce que nit ki bu fekkee ne mën naa jël léppam def ko ci réewam ngir euh, réewum jëm kanam rek man damay dama lay faa dama lay bëgg waaw moo tax euh, ku mu sopp la wax dëgg yàlla euh, kon loolu la bëgg kii suñu président it yaakaar naa loolu lay def premier ministre incha allah moom itam ñoom ni koy waxee ñaar lañ ñoo xam ne kenn mu leen a xaajale te te itam loolu lañ ñaan yàlla bu ñu leen séparé mukk nañ ànd ba ila abadil abad ndax eh, yàlla moo leen boole te ni leen yàlla boole dafa rëy waaw kon loolu ñu bàyyi xel war nañoo bàyyi xel nit ñi di leen eh, eh, jaxaseeg yu mel noonu kon foofu lañ doon duggee après itam dugg nañ ci itam suñu imam boobu di nga xam ne imaam grande mosquée la doxalin yooyu mu defoon nga xam ne am na réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi ñu bari ñu ngi ko ci ŋàññi ñu ngi ko yóbbu waar yu bare bari loolu moo doon suñu Euh, leeral tey ñuy wax ne képp ku bëgg a dugg incha allah mën naa woote 88 628 19 05 88 628 19 05 mooy. waaw ah, kay jëf sëñ Modou ci xarala gi ñu ngi sant bu baax a baax euh, di wax mbokk yi rek ni loolu moo doon seen mel ni am na ku ne ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku ñu ngi siyaar. Ndong la Touba Darou Manane. ah tur tur bi. Modou Diba. ah sëñ Mouhamad Diba ñu ngi lay siyaare Diba. naka yittee. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. barakalaaw Diba. waaw imaam bi de moom maanaam dafa dafa juum rek. dafa juum waaw waaw. dafa juum rek te xam ne war a xam ne maanaam ñii bokkut ak gaa yi fi jaaroon. dëgg la dëgg la waaw waaw. ak ñii ak gaa yi fi jóge bokkuñu dara dara dara bokkuñu ni ñu doxee. déedéet déedéet. waaw waaw léegi nag ci El Malick Ndiaye lim de moom rafet na lool. wallaay ndeysaan ah rafet na kay. rafet na lool lool lool wax dëgg yàlla. rafet na kay rafet na. waaw ñëpp ngay rafetlu. ah waaw ndeysaan ndeysaan. léegi suñu mbokk yi ñu ne ca daaka ga nag moom moom ñoom itam ba tey maam xam na ñoom tamit ndax ñoom ñoo bokk tànk bokk Mouhamed bokk lépp. waaye bokk sant Serigne Balde Balde yi maanaam Serigne Serigne ku ci ne. Balde loolu mën naa ñàkk seen diggante. waaw waaw waaw waaw. Ah. fekk yàlla rek a tax ñuy def. Ah. ma mën naa ñàkk. dëgg la dëgg la kay. waaw baax na jërëjëf. waa kay Diba ñu ngi siyaare bu baax. waaw jërëjëf waaw jërëjëf waaw kay kon 88 628 19 05 mooy bu jokkoo gi incha allah eh, xam naa des na tuuti nag ñu tàggoo ndax eh, xam naa fii ne waxtu wi moo kii tey sax dañ noon xam naa mënta ñàkk rek faw ñu ñëw eh, émission bi waaye xat na lool lool lool wante faaw du mën a ñàkk rek ñu ñëw incha allah déwénanteeg yow yu mel noonu kon ñoo ngi leen di bàyyi xel tuuti rek bu fekkee ne. am na ku ñëw incha allah 88 628 19 05 88 628 19 05 ñu jël ko wante bu ñëwut it xam naa incha allah dañuy tàggoo foofu yéen rek ba beneen yoon incha allah dina wax ne émission bi moom nii lay doxee muy euh, leeral la euh, képp koo xamante ni incha allahu euh, bëgg nga ñu dalal la fii ak loo bëgg loo xam ne nii bëgg nga mu leer ci réew mi ak yu mel noonu rek nga leeral ko incha allah dinañ la dalal waaw bu ko defee ci numéro bi. Euh, dina am ku la wuyu incha allah dina bàyyi sa foofu bu ko defee ñu dalal la incha allah mooy 88 628 19 05 wala 88 628 80 jërëjëf euh, incha allah kon ku euh, bëgg a jokkoo ñun ci émission bi rek incha allah mën ngaa woote ci numéro bii 80 77 177 43 70 77 177 43 70 incha allah ku ku ci jokkoo ak. incha allah directeur bu soobee yàlla dina euh, ma jokkale ak yow incha allah ba ma dalal la fii ndax euh, émission bi émission bu am solo la ndax euh, bu ñu sañoon waaw ba tey it sama numéro incha allah ku ci bëgg a woo 80 da ngay woo da ngay def 76 398 91 77 76 398 91 77 mooy sama numéro incha allah.